alors mbokk te spectateurs il est exactement 20h, passé de 30 minutes très heureux de vous retrouver euh, sur les antennes de Sénégal 5 TV asalaamaaleykum mbokki xam dootale spectateurs yi ñu leen nuyu di leen ziar bu baax baax baax rafetlu ànd bi ànd ñoonu saa suñu programme dal ci na jàmm nag seen émission li nga xam nekk moo le point de l'actu euh, kon nous nga defee mbokk te spectateurs yi euh, saa su nekk si li nga xam nekk moo Sénégal 5 TV tout en espérant que ni passe ngeen koriteeg jàmm ak salaam daal leen di dalal jàmm seen émission li nga xam nekk moo le point alors le point day daal exactement sur l'essentiel de l'actualité mbégte dama si ànd ak tey jii di ki na xam nekk moo justement Serigne Niang Serigne ñu naa lu baax a baax baax di la ziar bay nga dal ñu téléspectateurs yi. maa ma lay fay bay Fallou di la ziar bu baax. Hmm. di amat mbégte ak contentement ak euh, euh, satisfaction jakarlo wat ak yow. ci euh, émission bu yàññ bi. Hmm. véritablement di la ndokkeel aussi ci ramadan bi ñu génn. Hmm. ñaan yalla yalla jégal suñu bakkar amin amin yu mujj ak ci yoon bi.

si boobu dañu nga xam nekk moo di rapport des sonko daal di faram-fàcc suñu mu gën a yaatu euh, si li nga xam nekk moo di taxaw woon ak ki nga xam moo di Ousmane Sonko suñu ay ponk bokk na lu daal di ñeel xam nekk moo di Juan Branco yegg si na fii si diwaanu Ndakaaru ginnaaw rek euh, mise à garde yi nga xam ni itam na ko euh, jëmale si Bassirou Diomaye Faye ki xam nekk moo di Ousmane Sonko daal di jàpp ni amuñu droit daal di li nga moo di fauté ni daal taxaw itam seetlu par rapport ak li nga xam nekk moo di ñëw Juan Branco au Sénégal exactement la dernière émission euh, la dernière émission hein, que le point de l'actu par rapport à l'augmentation des pouvoirs du euh, PM di que premier ministre si euh, projet bi nga xam itam ñukay daal di wacc ni si fi daal di augmenter li nga xam que mu di les pouvoirs Ousmane Sonko des na ko daal di euh, faram-fàcce itam suñu mu gën a ki nga xam que moo di Bassirou Diomaye Diakhar Fay mo daal di benn benn ko li nga xam que moo di lettre euh, directe adresse ko directement ñi nga xam itam. Euh, ñoom ñoo nekkee si li nga xam ne que moo di administration yi ne si itam ndax seenu ko liggéey mu daal di gën a war a mën am impact si askan wi ñetti kàddu daal di yëg ci jub jubanti ak li nga xam ne que moo di jubal alors euh, loolu nag si administration yi la ko daal di yëg ci fexe itam ba lépp li nga xam ne itam ñu koy daal di def mu daal ak li nga xam ne que moo di bëgg-bëgg askan wi loolu tamit dinañ ko daal di si nu mu gën a yaatoo par ne que moo bëgg-bëggu teef ki na xam ne que moo di Bassirou Diomaye Faye à travers benn station direct bi nga xam ne itam def na ko mu daal di koy yëg daal di ko li nga xam nekk modi di à travers li n'a xam nekk moo di yooyu de administration dañ ko daal di faram fàcce si itam si nu mu gën a yaatoo te seen émission li nga xam nekk modi le point de l'actu bu tay bi exactement alors donc dañuy daal di dox suñu waxtaan sans doute par rapport ak li n'a xam nekk moo di mbiru Mame Mbaye Niang par rapport ak li n'a xam nekk moo di rapport bi exactement ginnaaw rek ba ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko génnee que ni dafa gis li nga xam nekk moo di rapport bi nga xam itam donc nga ko envoyé si téléphone am rapport boo xam ni itam da nga ko épinglé par li n'a xam nekk moo di euh, euh, par li nga xam que modi IGE if nak nag jul ñu né IGF la en tout cas donc euh, rapport bu koy épinglé par IGF ki nga xam que modi di Mame Mbaye ko yobbu di koy kanam yoon ak wal kianal les conclusions justement de cela Ousmane Sonko daal di koy daan daal toll si nga que modi six mois de prison yo xam du ko dal di tëdd ak li nga xam que modi 200 millions suñu ay alors boobu ba nak ñu dal di japp ni il faut ñu dal di li nga xam que modi di bobu dañ nga xam que modi procès wo exactement itam les éléments clés yi nga xam ne itam gëwoon si di fës bokkoon ci ki nga xam que Mody Biram Seck ñoom Clédor Sène itam d'autres ñi nga xam tam itam bëggoon neen témoigner mais dañ leen ko dal li nga xam ne que Mody gànkaloon si nak nag jàppaleen itam ki nga xam que Mody Mame Mbaye Niang lu moo peut-être régime bu bees bi daal yek ñu daal di xaar ñu daal di war mëna mën a tëggaat xoolaat exactement si bobu dañ xam ne que moo euh, rapport amna wala amul ki nga xam que moo di euh, Mame nak dem nag démb ba mu noonu daal di jekkalanteeg jokkalanteeg li nga xam que moo di par rapport ak ces euh, nouvelles nominations moom ki nga xam que moo di Mame Mbaye Niang nee na des comptes setal na ko et que euh, depuis li nga xam que modi janvier la ko setal ni daal taxaw setlu xol depuis janvier batay ak ax mu wutal noonu lu tax Mame Mbaye ko lutax tax batay ji ba ne depuis janvier da leen daal di génne li nga xam que modi justement rapport fa nga xam ne itam mooy daan ko Cour des comptes ma mom japp na jàpp euh, d'après le journal critique si li nga xam que modi 84 pages waaye tam si li nga xam que modi 40 recommandations nul n'a été cité li nga xam que modi le nom de Mame Mbaye Niang ni moo lubal wala lubalul ni si dal di ñëw si nu mu gën a exactement alors Serigne euh,

d'après Mame Mbaye bi nga xamni tam japp na ni euh Cour des comptes seetal nañ ko ci 84 pages ak aussi 40 recommandations nul n'a été cité son nom donc mun nañ jàpp ne rapport bi amna ba paré bala ñoo yegg si mo def wala kon wala kon deful. wa xam nga mbir mu jur coow la mbir mu agité mbir mu agité également l'espace politique bi. Hmm. depuis c'est depuis que hmm. euh, l'annonce a été faite. parce que tout simplement mbir la mo xamante ni je suis ni bari na Sénégal. parce que comme li nga dit, c'est un film. avec hmm. des conséquences multiples et multiformes parce que si remonter remonte un peu vers l'historique de ce scénario là nga gis Ousmane Sonko à travers un point de presse. Hmm. ci la toog wax ba tudd ni rapport bu épinglé mambay Mbaye Niang ci mbir mu toll ci. 9 hmm. milliards concernant Prodac mu concerné programme domaine agricole mm. maintenant bi mu waxee loolu Mame Mbaye wa jàpp li Ousmane Sonko wax amul. Mm. mu dem saisir les juridictions comme ni ko yoon pour que véritablement son honneur soit lavé. Mm. non la ko maintenant rapport boobu bi Ousmane Sonko avant Ousmane Sonko di tudd loolu dégg ay ñeneen wax ko ku ni na ba livre sax Amadou Ba bi nga xamante ni nekkoon na premier ministre du Sénégal nekk itam un candidat malheureux jël deuxième ci élection présidentielle yi wax na ni rapport bi ça existe mm. à travers une vidéo bu ñëpp gis ak ñeneen ak ñeneen même Clédor Sène bi nga tudd léegi Clédor Sène laa njëkk a dégg man mm, wax wax waxu rapport moom IGF sax la waxoon mais Ousmane Sonko ñëw def lapsus bi wax IGE donc après wax na ni IGF la bëggoon a wax mm. maintenant bu ñu tënkoo rek ci autorité yooyu yëpp mën nañ jàpp ni rapport am na bu ñu tënkoo ci autorité yi yi wax mooy hmm. euh, Amadou Ba nekk jëwrinu nekkoon jëwrinu gouvernement bi ak ñeneen ak hmm. ñeneen hmm. ñoo xamante ni jàpp naa ni seen wax am na solo te rapport bi aussi véritablement y a beaucoup de yi wax ni rapport bi am na ba même Mame Mbaye boo xoolee sax démb bi muy wax aw na ñu ñu ni loolu am na kon véritablement la question qui mérite d'être posé moi. Tay bu ñëwee rapport bi amut laaj bi mooy fan la rapport bi dugg parce que man dama mës a ni rapport bobu amna te fi ma tek teg moo ni autorité yi ma dégg ñu wax ci te ñu bari wax nañ ni la base fondamentale aujourd'hui hmm. euh, bi nga xamé ni que mo mo mo jur problème Amadou Ba ak Mame ñëpp ne nañ looloo ko indi. ba maa mbay ñaa mu ne du ko jàppale. voilà looloo indi loolu. ñëpp ne nañ looloo ko indi. te Amadou baa am na vidéo buy circulé bu doon circulé bu wax moom bu wax ci rapport bi am na même Mame Mbaye Niang moom le principal concerné mës na ko wax ci ay vidéo yu yàgg kon nag tey question bi mooy fan la rapport bi dugg Fallou. parce hmm. que mënuñu xëy un bon matin ñu ni rapport amul te dégluwuñ ci fondamentalement ñi nga xamante ni aujourd'hui sont concernés te ñoom nee nañ ni am na. Clédor sen Amadou Ba ñeneen ak ñeneen ñom nee rapport bi amna. Pas parce que Amadou Ba bu waxé ni rapport bi amna, ça veut dire rapport bi amna. Pas parce que minis ministre ministre ministre tutelle. Hmm. bu mambe nya. kon nak je sais pas ce qui se passe après ba ñu ne rapport amul un rapport bu nga xamanteni waxna ko léegi limu jur ci ay conséquences Sénégal mënu xam toll désordre yu fi créer

way mën nañu ko jàpp donc rapport am na ak rapport épinglé na ko dafa ute. waaw xam nga rapport épinglé nit ki te tekkiwul ni nit ki moo def bari na ñoo xamante ni des gens qui ont été épinglés par un rapport par des rapports du moins. Hmm. mais cela ne prouve pas que ces gens là vraiment ñoom ñoo def li ñu leen wax bari na y a des gens yu ma xam. yoo xam rapport épinglé wala mais li ëpp solo ba am solo mooy justice mooy def ay enquête am ba xam ndax lii am na wala amut maintenant est-ce que la justice de notre pays a fait véritablement son boulot pour que nous puissions a dem ba mën rapport bi bel et bien ça existe ou non est-ce que ligue bi ñu ci war def enquête bi ci war def parce que bu vous qu'un dañuy def enquête normalement autorité yooyu ma la wax war nañ leen déglu. war nañ hmm. parce que oui quelle est la scène seen ko avant hmm. son code ko wax. Hmm. du waxee ñun la. ñoom Birame Seck bëggoon leen témoigner si procès bi mais dañ leen ko gànkal ak boo gisee boo boo déggee ñun la Mame Mbaye Niang am na ñu mu ci yóbboon kaso euh, ci ay journaliste ñeen ci ay journaliste nangam ak nangam mais depuis boobu léegi mu ngi dégg ay nit di ci wax mais déggoo ko ci mu wax ci il a fallu Sonko wax ci dafa mel ni daal am na lu nekkoon ci ginnaaw Fallou était l' objectif principal c' de barrer la route à un, à un opposant politique très influent pour que bu mu bokk maintenant que l' objectif est je pense que euh, amatul menace te boo xoolee tout dernièrement yaa ngi wax ni Mame Mbaye lu tax mu bàyyi ba léegi. Hmm. loo xamante ni depuis janvier la woon mu bàyyi ba léegi. mais da nga xam ni contexte yi euh, la cour euh, mais contexte yi bokkul contexte yi bokkul. il a quelque chose boo xam ne koy wala il a. non ñaar yooyu la contexte bi lu tax ma ni contexte yi bokkul benn mu ngi ci contexte boo xamante ni ñàkk nañ nguur nekkatuñ ci nguur gi deuxièmement def na passation de service amatul benn ndombol tànk. beaucoup moins gens beaucoup moins sécurisé, sécuriser du ci du ci service yi muy diriger également que l'affaire product devient même une demande sociale c'est une demande sociale quand même parce que vous tournez dans les plateformes digitales l'affaire product. affaire product. Mambay Mbaye Niang Sénégal sénégalais yi ciblé gën a visé pour ñu topp mon moom premier premier kon ça devient même une demande sociale mm bu nga sénégalais yi véritablement li ñu xaar que que hmm. cette euh, affaire là soit tirée au clair mais malheureusement on s'est réveillé très tôt le matin et on a vu que Mame a été euh, blanchi d'une partie affaire rapport etc. tout ça. alors maintenant c'est une affaire bu nga xamante ni man parce que jàppoon naa aujourd'hui les 29 milliards comme je l'ai dit tantôt 29 milliards, milliards c'est pas 29 000 francs. Hmm. c'est 29 milliards des sénégalais. Hmm et que cette affaire là véritablement waron nañ fondamentalement fallu pour que les responsabilités soient situées nous ñi nga xamanteni laal nañ ci parce que milliards yi domaine mm. Mm. Mm. est-ce que fondamentalement hein? est-ce que est-ce par rapport à l'investissement investissement yi ñu l'argent du alors mais Serigne peut-être euh, réservons-nous peut-être euh, si toutefois Il y a une école, xam que politique est-ce que tu as Mbaye le grand perdant si toutefois il a été utilisé peut-être une équation là pour écarter la candidature d'Ousmane Sonko est-ce que as nekkul di récolter un peu les pots cassés. Oui, mais c'est arme la on utilisé mais est-ce que moom nekkul di récolter moom les pots cassés moom Mambaye mais bien sûr que oui bien sûr que oui le problème en est que moi hmm. Mame Mbaye venu de première instance parce que pour que je comprendre li il faut que dafay laaj parce que dossier pour évoquer ko convenablement il faut que remonter li Je indi. Hmm. xam nga Mame Mbaye dans première instance lu lay war ni arme la rek pour barrer la route. Hmm. waa ji mu bañ participer ci élection présidentielle parce que demoon nañ ba dossier Adji Sarr bi mom mbir la mo xam lu mais non bi ñu demee première savait que ce dossier n'allait pas prospérer. bu Adji Sarr bi bu Adji Sarr ah. mais yow mi sax xamone ko ko xalé yi door a juddu sax bo len ko laajoon ñu xam ñu wax lako. man ba affaire bi joggé laa ne du dem man bañ ko téggé loxo laa ne du dem. parce que moom parce que Mame Mbaye Niang si ba mu waxee ni man man rek sama dossier xagn na Ousmane Sonko bañ bañ a bokk. waaw mais c'était l'objectif jaaxaloon na ñu bëri. parce que comment euh, une diffamation. xam nga Fallou lu tax ma pour mais mais xam nga lu tax ma wax la. Hmm. ma wax la ni il faut remonter ci point fondamental bi fay am solo. D'accord dossier Mame Mbaye du première instance lañ dem ñaata mois lañ ko euh 2 mois. 2 mois ak lan mm. sursis. ak ak sursis. 2 mois. Mm. xam nga loolu mënu ko won xagn mu participer. Mm. billahi wallahi wa taala ci plateau la ma fekk ma ne leen mois yi da fay bouger. day tëb day dinañ ko yokkat parce que l'objectif biñ bi doon xaar atteindre ñu ko foofu. bo demee ci cote euh, ci euh, euh, ki bi xañu ko mu bok ci élection présidentielle. amé bañ a article bi di juum. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Après juste la décision de la première instance. Qu'est-ce qui s'est passé après C'est ça, il faut que nous reposer l'interrogation. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé après mm. euh, La position du procureur. Mambay Nia, vous jubiler. Ok. Nous dansons ko amende ko. Mambay Mambay devait jubiler. Jubiler tâche. Mais après, l'an nous changé. L'an la grande question, le procureur de la République qui est censé être le défenseur de la collectivité qui waroon défendre Ousmane Sonko pour que ses droits ne soient pas ne soient pas. Hmm. Euh, hmm. ne soient pas violés. C'est ce même procureur de la République mon mot taxaw ni qu'est-ce qu'il a fait le procureur c'est lui qui a interjeté l'appel hein sur la peine. ñu yokk peine bi ñaata. mois l'objectif c'était de lui barrer la route nga à un moment donné de la, situation, hmm. on s'est basé sur la justice hmm, pour combattre un opposant politique. parce que sur le plan politique nous avons ci des daanu nañ. Hmm. voie yu maintenant c'est la voie judiciaire qui reste Il faut que nous ni li tax sax nit justice bi la procureur dougal na ci loxoom lu musul am dans l'histoire de notre pays man li ma daan gis yëpp le procureur de la république bu daan taxaw di défendre askanam lay défendre askan wi le peuple parce qu'il est là pour le peuple tu as vu léegi bi lolou amé fallo. jàll nañ foofu foofu xam nga déjà foofu rek woné na ni procureur ni mo won taxaw taxawoo ko hmm. mais benen bi bi euh, les avocats de Ousmane Sonko amé délai pour def recours au niveau de la Cour suprême qu'est-ce qui s'est passé après avant délai bi di wu enclenché wat dossier bi manam mayu ñuko pour que délai de recours lolu moy président kaso lolu la naxarlu won hmm. bin ko si magistrat lolu la parce que dañu violé non seulement ses droits mais dañu violé la déclaration universelle des droits de l'homme tu as vu. Hmm. légui que bimu amé même bi dem cour suprême qu'est-ce qui s'est passé après Soulevez-vous l'inconstitutionnalité hmm. de cette loi-là. Le Cour suprême ne peut Il faut sursoir. Parce que les juges ont soulevé l'inconstitutionnalité de la loi. Par exemple, la loi qui est appliquer sur moi, la loi qui est actée. Il Faut, normalement, nous soir. sursoir.

bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi mën doon wax léegi mën nañ am njort parce que ñun itam dara waruñu si waaye mën nañ am njort ni rapport am na. Hmm. njort mën nañ njort ni rapport am na. parce que ñi wax itam du ñu ay n'importe qui si réew mi. ñu am c'est des gens tellement lu ñu bari na lu ñuy wax itam dafay nekk dafay am dëgg. Hmm. kon naa maintenant nag ñoom ñëw nañ au pouvoir aussi peut-être xëy na peut-être il y aura d'autres par rapport à ce dossier-là. Hmm. Alors, le, wow. alors l'agitement de Mambay Niang, bataille, euh, parce que euh, il s'est agité. Hmm. Le silence d'Ousmane Sonko, n'a analysé justement euh, deux postures, l'agitement de Mambay Niang et le silence assourdissant d'Ousmane Sonko. Malgré le éliminé. Ouais, Peut-être il va en parler parce que Ousmane Sonko Ousmane Sonko n'est plus. Euh, euh, Ousmane Sonko c'est ordinaire. voilà beaucoup def euh, actuellement c'est le premier ministre de la République de notre pays. Hmm. tu as vu il incarne même une institution très importante Amna yo xamanteni ci débattre quand même. aujourd'hui le man pour man li ëpp solo ci mom hmm. moy djublu ci hmm. askan wi. parce que son combat réussir nos combat ben, son premier combat réussir na combat son combat actuellement c'est d'affronter la réalité des Sénégalais c'est de voir comment faire pour trouver des solutions par rapport aux pulsations de l'opinion ñaxtu mais c'est pas son n'est plus le problème de Ousmane Sonko parce que Mame était un bouc émissaire dans l'affaire product bouc émissaire là on on négocie Ousmane Sonko une arme utilisée pour dire à Ousmane Sonko qu'il doit du dem élection présidentielle donc dossier la won boo xamante aussi ci ben côté Ousmane Sonko amna ci responsabilité hmm. aussi. alors est-ce que IGF len wara xaar wala euh, li nga xamné ne. moo di la Cour des comptes IGF. parce eh, que euh, jàpp nañ IGF len wara xaar euh, que la Cour des comptes exactement loolu tamit amna outé wa amna outé itam moo tax ma la peut-être dossier bi jeexagut. peut-être il y aura. parce que Mame Mbaye Niang IG mais IGF la. si euh, si si mais mais Sonko rectifié na ko sax.

nous pouvons témoigner ce qu'il peut-être prétendre par rapport à ce que c'est possible hmm. procès bataille. Mais est-ce que tu risques d'assister à d'autres justement euh, batailles judiciaires. Oui, mais plutôt parce que c'est l'argent des Sénégalais aussi. 29 milliards c'est l'argent des Sénégalais. Hmm. am man procès mën nañ ko ubbiwaat même bu dul Sénégal sa yàgg naa di gis ay procès yoo xamante ni mën nañ ba fàtte ñu tijjiwaat ko fekk ka ñu condamné woon. là c'est une demande euh, askan wi ñoo koy demandé. mais mën na nekk c'est une demande social mais le cas de Mame Mbaye Niang c'est une hmm. demande sociale mais da ngay xool li mu yàq Sénégal yëpp ak coow li mu fi indi yëpp en tout cas amul procès bu ñu mënul ubbi mën nañ ko ubbi. alors c'est clair c'est clair oui. Euh, nous allons exactement itam M. son excellence euh, monsieur le président Bassirou euh, Diomaye Diakhar Fay, qui a amal lettre directe CNC administration ki mais fixé exactement un code de conduite aux agents de l'administration administration non nak mi les principes directeurs mu évoqué li loi 2012 du 22 au 27 euh, décembre 2012 les exhortes au job. Job, jubal, euh, jubanti euh, évoque la droiture, la probité et l'exemplité commandent chacun de leurs actes Mon ki n'a pas de di ma Diomaye dadi daal di directement li nga administration bi double ak double exactement way tam mi ngi changer li nga xam que xew ci entreprise yi fexe itam ba administration ñuy dal xey heure wacc heure waaye itam fexe ba lijjanti li nga xam nekk moo di jafe-jafe li nga xam nekk moo di askan wi alors mu nekk euh, beneen euh, euh, citation directe bi nga xam ni itam moom Bassir Diomaye Faye bëgg na changer exactement le fonctionnement de nos administrations fii Sénégal parce que sax ut fi koy des fois sëriñ mu metti lool ut fi aussi mu metti lool exactement alors ponctualité ak aussi jubal gi nga xam ni itam Bassir Diomaye Faye wóolu na ko si administration yi ku bëgg a toog toog peut-être vous euh, êtes d'accord avec li que xam avez moo Quelle analyse pour moi, ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses parce que le président Bassirou Diomaye son excellence maintenant c'est le chef suprême de la nation. Hmm. Hmm? Hmm. Et il est le garant du bon fonctionnement régulier des institutions de l'administration. Quand il lit beaucoup ko il def na lu mu texte il a parlé d'un Sénégal réconcilié un Sénégal transparent parce que ñetti njàngat rek la ci am. Ben, way ñetti njàngat Ben bi moy tagg na administration bi bak na len kañ na len way na leen jiiñ na len deuxièmement lancer na alerte aussi par rapport aux agents euh, aux agents de l'administration waye benen bi aussi indi na une protection yooyu nak dina ko développer manam daf leen bak lancer alerte par rapport ak sen ay responsabilités ku si nekk delluwaat na la si responsabilité benen bi mooy lancé une protection loolu dinaa si ñëw xam nga lu tax ni daf leen parce que daf ni tey bu ñu niveau de démocratie bii ñu am tey ci àdduna bi ba ñëpp di c'est parce que tout simplement l'administration de notre pays a joué un rôle important par rapport à ça. a été forte. maintenant bu ñu amee stabilité bi jàmmi réew mi ba ñëpp di ko naw tey administration bi daf ci jouer un rôle colossal. Hmm maintenant wax na ni l'administration bi wara nek des artisans les les agents de l'administration, hmm. ay artisans lañu wara war a doon dañoo war ay ay sentinelles. Hmm. pour préserver véritablement les valeurs. les hmm. valeurs républicaines. xam nga bo xolé importance bobu yëpp jox na len ko évoquer na len. nee ñom ñoom wara fexé ba liggéey liggéey bo nga xamanteni sénégalais dañ ci gis sen bop. parce que au niveau de l'administration, fallu quoi que l'on puisse dire wax nga ko légui, il y a des tares il y a des gens qui ne travaillent pas il y a des gens qui ne sont là que pour leurs intérêts, pour des intérêts exclusivement personnels. Hmm. Mais de l'autre côté aussi, il y a des gens qui vraiment qui œuvrent pour le Sénégal, pour des lendemains meilleurs pour le Sénégal dans l'administration. Administration Sénégal ngay dem comme li nga dit, léegi ngay am out kayit bo xamanteni mën nga ko am légui légui ñu lay de wala dila la ko xaalis wala dila la dila la di la la waji fi la jaar fi la dugg ndekete mom mi ngi ci ay mbiru bopam damay dégg boo demee ci ministère yi. Hmm. administration et pour la plupart respecté wuñ nit ñi. Hmm, damay dégg arrogant nañu. arrogant nañu fallu hmm. ñu bare bare ci administration Sénégal. il faut ñu xaaral ñu dékkee ba paré voilà donc nak yoyu je pense que baxna pour mu rappeler ko aussi. ñuy xey heure di wacc heure. bo demé ci collectivité territoriale da ngay ñëw bëgg ku la signaler sa extrait de naissance ñu nan la waji ji ñëwagut. wala fekk ko kërëm est-ce que tu as vu. yooyu yëpp nag c'est des problématiques tay aujourd'hui fi bo demé ci ambassade war rendez-vous pour nga am ko légui dañ lay dañ pour rendez-vous est-ce que ça c'est normal. maintenant si politique de rupture il faut que dañ encore une fois dafa lancer alerte lancer alerte moy évoquer la loi de 2012. Hmm. rappeler certains principes. Hmm. yan principe éthique ak. Hmm. déontologie déontologie xam nga wax éthique ak déontologie en même temps aussi. rappelé na yeneen principe muy jub. Hmm. jubal jubbanti jubal jubbanti parce que administration bi lu jubut bari na fi. Hmm. lu ñu war a jubanti bari na fi mais nee na ñi nga xamante ni aujourd'hui dañu war a taxaw comme taxawaayu sentinelle ci biir administration ba bu ñu gisee loo xamante ni que dafay enfreindre tout infraction boo xamante ni dafay dafay waroo ak. Euh, hmm. li loi de 2012 bi santaane. nañ ko dénoncé xam nga wax na loolu. maintenant ñi koy dénoncé jox na leen sax sañ-sañ. parce que nous allons dinañ taxaw. dinañ leen les lanceurs d'alerte. voilà dinañ leen protéger kon nga xamni vraiment lettre bu am solo la euh, ñetti analyse yooyu laa si jàngat euh, bàkk na administration bi waye delo na len ci sen ay responsabilité te len alerter. Hmm. parce que ku nek degi da ngay delu sa responsabilité manam buñu ñu kenn ku ci doxal lu mu war doxal jappal ni lu dal sa kaw lu loo góobee nga gar nga gar ko voilà en tout cas lancé na len alerte bobu Mm. maintenant ragalloowul tamit aussi jox na fit ak sañ-sañ ñi nga xamante ni ñu ngi gis lu leen naqari ci biir entreprise bi loo xamante ni bokkul ak éthique ak déontologie. Mm. ñu mën a demoon ñu mën a dénoncer loolu. kon nga xam ni vraiment lu am solo la moom la def en tant que comme ni ma ko waxee à l'entame de mes propos en tant que garant du bon fonctionnement régulier des institutions lii mooy rôle on ne doit protéger personne comme ni ko président Macky Sall waxee woon le président Macky Sall waxoon na ni je ne protégerai personne. maintenant cela doit être une réalité. Mm.

motax euh, ci sens bobu la la comprendre aussi li nga xam que la euh, lettre de Diomaye Faye bi hmm. une lettre véritablement avec beaucoup d'importance euh, boo xamante maintenue aujourd'hui ñom nak nañ ko jëfé itam. Hmm. les membres de l'administration nañ ko jëfé hmm. ah, alors c'est important. alors c'est clair exactement par rapport ak bobu de li nga dit que modi lettre sur ñu bëri ni parce que Diomaye Faye peut-être le président son excellence euh analyser peut-être xaw a sévère tuuti.

donc il faudra que les sénégalais aussi comprennent l'un ci sens hmm. voilà en tout cas gisuma ci lu sévère lima moy euh, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition hmm. pour son pays et qui veut vraiment euh, travailler pour euh, parce que xamna les enjeux hmm. xam na ni sénégalais aussi ñu ngi leen xaar te fi sénégalais yi xaar ce que disait Ousmane Sonko un gouvernement de résultats impérativement ils doivent. Euh, mi xéñ ni nga jàpp ni. Hein? mi ngi xeeñ waaw mais ñu ngi si yoon bi parce que. conditions yi ñuy teg. waaw mu ngi si yoon bi mais instant bi mënaguñu wax ni résultat mais ñu ngi ci yoon bi su fekkee maintenir nañ mais l'essentiel rek mooy bu ñu dellu ginnaaw mukk ci seen réforme yi. ñu hmm. am te bu ñu seetee si benn pression. waaw xam nga président Macky Sall bi muy ñëw amoon na volonté yi bi yëpp amoon na ko mais après finalement dafa dellu ginnaaw parce que lu tax mu dellu ginnaaw mooy que ni euh, mu ngi doon calculer ay deuxième mandat hmm. yàqule. Etc. tout ça donc lol, nak, euh, bu l'endal, ou dal te waru dal parce que véritablement tay, charge bi pesé wu sen kaw diis na gan. Hmm. torop parce que fi ñu fekk Sénégal la. fi ñu fekk euh, conjoncture nationale bi la hmm. fallo. fi ñu hmm. fekk conjoncture internationale Bo xoolee sax même le ministre euh, des finances et du budget. Diba nan Diba mi ngi ko don wax Bo xoolee ci tabaski bi ci ramadan bi nous allons voir, wax di wax peut-être euh, mën nañ tomber dans une situation très difficile. Hmm. vu euh, le contexte euh, mondial et international et international. Hmm. maintenant mën nañ ko comprendre ci beneen aspect et peut-être loolu du l'objet du débat mais ce qui est sûr et certain pour revenir à nos moutons moi lettre bi lettre bu baax la lettre bu ma encourager la aussi. parce que man pas, naa ko xam nga man du ma dégg tël di tam. Hmm, man damay def jàngat analyser voilà parce que lettre bu gudd la mais am solo. ci euh, lépp euh, contenu bi loo jël rek am na alors si jàngat boobu noonu lay ñëwaatee un peu daal def benn rétropédale suñu émission bi passé euh, sëriñ ñi nekkoon fa am solo par rapport ak li nga xam ne l'augmentation des pouvoirs d'Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye alors nga évoqué woon que ni ñi ngi tiit daal di dem si nga xam ne que moo di benn li nga xam ne peut-être dualité alors lors nag juróon na li na xamne ko modi ciow peut-être ñi ñi comprendre exactement wala ko ñoo mal interpréter ses propos lañ leen mëna a par rapport ak li na xamne ko modi justement euh, l'attribution yenn ci ay pouvoir yu présent vers son PM premier ah, ministre waaw xam nga man man man su may wax damay wax hmm. damay wax lu ma xam man wax duma de <laughs> loolu il faut mu leer <laughs> man duma nit koy waxantu Fallou hmm. waaw yàlla dimbali na ma nag hmm. Euh, car machallah, hmm. institutionnellement parlant institutionnellement parlant nous avons déjà un premier ministre fort mais institutionnellement parlant nous avons un premier ministre déjà fort institutionnellement parce que sur les attributions le président de la république et le premier ministre. Je la fini, Sonko ah, le président le premier ministre de notre hmm. pays le hmm. premier homme de confiance du président de la république bari na le président de la république di def daf consulter daf koy que ce soit la dissolution de l'Assemblée nationale hmm. que ce soit l'exercice des pouvoirs exceptionnels ak ak ma même le gouvernement ñi ñu normalement premier ministre proposé proposer le président de la république le premier ministre le président de la république moo tanal bopom boppam te laajul fàllu laajul sëriñ ñaa laajul ma sàmbam laajul ma demba moo koy xool ci coobareem tanal ko bopom kon xoku amna confiance am as vu? nga gis ni deuxièmement toujours ci ay attribution le premier ministre c'est le leader de la majorité c'est le trait d'union entre le président de la république et l'assemblée nationale hmm. tu as vu c'est le trait d'union entre le président de la République et l'Assemblée nationale troisièmement Mohleni, c'est le chef suprême de l'administration Madame l'administration sénégalaise c'est le c'est le chef et c'est lui qui dirige qui conduit la politique du gouvernement la la la vision du président de la république comment on moo koy après on va rendre compte. le hmm. premier le président de la république kon nga institutionnellement parlant am na doole. Hmm. le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Faye bu on a le conseil euh, le le conseil des ministres bu ko mënul woon assister hmm. constitutionnellement parlant est la constitution qui jox sañ-sañ remplacer c'est le premier ministre. kon il n'est pas n'importe qui. mais non ma wax ni question boobu du avancer de trop parce que là Jusque-là, je n'ai pas compris le contenu de cette réforme. Parce Pourquoi que maintenant... Il veut euh, voilà, il, augmenter ses voilà. pouvoirs. aspect, aspect. logique. Ouais, parce que mm. je suis parfaitement d'accord que les attributions du, du Premier ministre soient renforcées. Mais fait que, mën nañ ko renforcer ci anam boo xamante ni laar leer na ma hmm. a arranger les institutions mën na indi mën na indi conflit après ci kaw sëñ le mooy bicéphalisme exactement le bicéphalisme c'est l'exécutif avec deux têtes bicéphalisme. Hmm. l'exécutif a deux têtes Madame, le pouvoir exécutif est incarné par deux personnes C'est le bicéphalisme gouvernemental. parlementaire hmm, hmm. c'est important pour nga parce que nous ñi mal interpréter. non mais nous, ne pouvons pas. Nous Ablaye droit constitutionnel est-ce qu'il y a une je parle de droit constitutionnel xam nga dafa am système politique il y' a trois systèmes politiques Il y' a le régime présidentiel y' le régime parlementaire am régime d'assemblée, est ce que xam nga lan moo tax pouvoir exécutif hmm. ak pouvoir législatif aujourd'hui sax ñun ñoo mais pouvoir législatif pouvoir délibératif la ñuy wax léegi. délibératif délibératif parce que le pouvoir législatif le la ni lu leer la de il faut bien écouter hmm. le pouvoir législatif bu ñëk ba lañ ko doon wax joxoon ko assemblée nationale parce que bu ñëk ba assemblée nationale ben sañ-sañ la amone donc moy confectionner les lois fofu la mission am yamone défar ay lois moo tax ñu tuddé ko le pouvoir législatif hmm. maintenant nak de nos jours ay rôle am dafa yok parce que légui yamatul ci confectionner des lois fa la débat yi am solo yi gëna amé Maintenant, il contrôle l'action du gouvernement. Il devient un pouvoir délibératif. Il contrôle l'action du gouvernement. Il a un pouvoir de sanction. Tu as vu Le pouvoir exécutif. Si l'Assemblée nationale a fait des lois, il a un exécutif pour exécuter. Si l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, nous avons réuni. Nous fait le président de la République tu as vu le pouvoir exécutif ne faisait que exécuter le pouvoir exécutif les ordres venant de l'Assemblée nationale c'était la confusion des pouvoirs pouvoir pouvoirs ci assemblée euh, contexte moderne mm. les rôles ont évolué maintenant le gouvernement d'aujourd'hui a l'initiative de développer la politique parlementaire tu as vu yooyu aspect yu yu grave la. Hmm. yu technique man lu dama bëgg typiquement ñu def ci un débat léegi nag ñun suñu jaawaloo xam nga fu mu am. Hmm. suñu suñu suñu réeroo fu mu am après la crise de Dia Senghor Senghor moo modifié la constitution de notre pays en 1963 xam nga lu mu ci def boobu régime parlementaire lañ nekkoon maanaam bicéphalisme bi ma la doon wax parce que on avait l'exécutif à deux têtes muy Paul Sédar Senghor qui gérait les affaires internationales et le Mamadou comme président de conseil sorte premier ministre il gérait les affaires intérieures bim écarté, écarté écarter Dia modifié la constitution un régime présidentiel pur ñu bari di ko développé un ah. régime présidentiel pur le indi mais man mandat mujj c'est un régime présidentiel de contrefaçon contrefaçon mooy. Hmm. un régime présidentiel bu ñu déformer, bëgg jox doole ju bari président de la république. Hmm. parce que un régime présidentiel C'est l'équilibre fallu des pouvoirs. aucun pouvoir warul mëna a am doole bu ëpp ci kaw un pouvoir C'est comme aux États-Unis d'Amérique ils ont un régime présidentiel bo xamanteni le le président actuel lu muy am doole doole doole doole sañul def ingérence ci congrès C'est ci congrès bi sañul def ingérence ci justice bi c'est l'équilibre parfait des pouvoirs loolu vous bu qu'on ni dans la réalité des choses aujourd'hui nous sommes dans un système présidentiel comme on le dit le président de la république warul doit a la justice de notre pays il ko instrumentaliser parce que nous dañu war taxaw comme ay contre pouvoir ku si nekk tey di nga procédure pour la garantir que nous du mën a ñëw dugg sa biir kii loolu ay termes yu il faut remonter hmm. le droit constitutionnel hmm. nga remonter ci ay aspects yu la constitution de 1958 nga la première république de France mm, mm. depuis euh, depuis ay 1793 et 92 remonté la première république deuxième république troisième république quatrième république cinquième république xam nga pour pour pour pour pour brosser 30 secondes mm. ci benn aspect on mës a toog télé France bi di ñu jox ay leçons sur ay coup d'état France da ngeen xam ñaata coup d'État là mais am na ñoom ni France mëna am coup d'état France li mu subir si coup d'état fi amul men rew pratiquement mu ko ku fi ku subiragum ci coup d'état fi te sen coup d'état bi ma njëkk a jàng bi ma njëkk xam c'était en 1851 la France a subi cinq coups d'état yuma ma jàng man yuma xam sen révolution yépp mëna la wax nu mu démé ak niko édi yépp tu as vu hmm. nu mu organiser ak lu ko indi maintenant pour revenir à nos moutons c'est ça le bicéphalisme hmm. c'est l'exécutif à deux têtes il y a du risque risques parce que hmm. mais les risques peuvent être évités peuvent être évités parce que les xewoon ci soir ñu ñëpp nañ ko xamoon nañ risques hmm. que ce système que ce système communicationnel bi entre ñaar ñi exécutif bi

si seen relation dafay répercuté wu aujourd'hui ci nekkanu askan wi. tu as vu. Hmm. dafay wëlbatiku nekk ci nekkinu askan wi. Hmm. dafay la lay lay dugg. en tout cas loolu rien ne peut-être après man ak yow. Hmm. dinañ ci def un débat très technique. très technique waaw parce que là, les mën nga wax ça dépasse l'entendement des Sénégalais. c'est clair alors que lu ñu xam la suñu domaine la. Mm-hmm. demoon nañ jàng ko. ba mm-hmm. ba am ci lu bëree mm-hmm. bëri. moo tax bu ñuy wax ci ay régime présidentiel dañ ci sawar parce que jàng nañ les relations internationales. alors léegi léegi léegi pour rebondir ci loolu loolu mooy bicéphalisme. Mm, c'est clair yàlla monocéphalisme monocéphalisme nag mooy li Macky Sall doon def. Mm, moom kese. yor lépp doole cëpp moom kese c'est le monocéphalisme kenn rek mooy kii. Mm. te boo demee ci régime présidentiel yu bëree bëri aussi c'est comme ça. alors c'est clair exactement euh, ñu daal di euh, wéyal ba tey suñu waxtaan alors ñu daal di addu ki nga euh, Juan Branco laata ñu daal di ki nga arrêté Sénégal exactement Juan Branco nak ko fa Espagne donc fa lañ ko convoqué pour être entendu de son arrestation au Sénégal donc une euh, enquête. la autorité espagnole daal di tiggi jëmale si ki nga xam ne moo di Juan Branco fa nga xam ni it mooy zaanuk euh, Madrid ma ni kon nag jàpp gi nga xam ni itam jàppoon nañ ko fii Sénégal am na benn tournure ma ni kon nag avocat bu euh, ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ginnaaw bu nga daal di jàppee fa xam ni it mooy zaanuk mu don tenter pour daal rejoindre encore une fois la France naka noonu nag euh, la dadi daal di une indiwaat ko fi ci rewmi li nga xam que juge d'instruction, bi dadi tidi li nga xam ne que moo enquête fa nga euh, Nouakchott suite à son enlèvement niki vendredi tidi nak Juan Branco. Euh, annoncé na li nga xam nekk moo arrivé ko Madrid euh, pour les besoins euh, de cette enquête manuka ni ko nag ki Juan Branco nag jàppe ni itam ginnaaw ba nga daal di arrêté si li daal di miru ki nga xamné que modi Ousmane Sonko way tam ak yex fi nga xam tam yex son ko fi Sénégal papa ak mandat international bi nga xam tam itam lancé nañ ko naka noonu nag jamono ji li nga xamné que modi Madrid na tijji nga benn enquête jëmale daal di war leral walu wunu mel alors ki nga xamne ne que moo di Juan Branco suñuy fàttaliku juillet 2023 la fi daal di débarqué de manière li nga xamne ne que moo di illégal ginaaw rek banko nga ko daal di ko mandat international par procureur man kon nak présence am ben conférence de presse bi nga xamni tam collectif avocat Ousmane Sonko do nañ ko daal amal mu nek premier ministre bu yees si nguru ki nga xamne ne que moo di Diomaye moom ki nga xamne ne que moo Ousmane Sonko jamono joj mi ngi woon si kaso bi mu daal provoquer won woon des interrogations aléatoire naka la daa def ba li nga xamné que moo justement euh, si deuk bi après des jours de cavale mum ki nga xamné que mouri euh, Juan Branco daal koy intercepté fa nga xam ne euh, Mauritanie laataa ñu koy envoyé fa nga xam ne it mooy zone di li nga xamné que moo di mum ki nga xamné que moo di ak nag tey Madrid woo nañ ko Espagne di li nga xamné que moo police ba dal di koy déglu si li nga xamné que non la dal ñëw fii réew mi waaye itam pourquoi dal di koy lancé mandataire international téwul batay tey mu di braver à cette interdiction Mourad fi exactement alors euh, Serigne euh, le temps de la justice n'est pas le temps aux hommes euh, Madrid s'est penché justement sur l'arrivée de Juan Branco à Dakar ah, réaction ah mais man de bi si ko yëgee moom ma tout. voilà parce que par rapport à li nga ñëk wax nak sank par rapport à dossier yi nga xam ubbil nañ ko fële ca Espagne. Hmm. mu ñeel euh, ñëw bi nga xam ñëwoon na fi jaaroon ci xaw ma gaal gi la jaar. xaw ma fu mu gaal gi ah, ah, dem bi daal si gaal gis nañ ko si gaal gi. mais bi mu ñëw xamuñu fu mu jaar waaw xamuñu fu mu waaw. waaw xam naa peut être eh, Gambie defe naa la ah, jaaree. Gambie Gambie Gambie naa xam nga ay Espagne bi pexe nag. xawaan day génn nii day dugg di waaw waaw xam nga moom moom moom euh,

à la lettre parce que moi li ma la wax rek. ñooñu bokkuñu réewu Sénégal yi des états de droit Vous déposer sa plainte voilà dañ koy dañ koy top té ay réew lañ yoo xam dañu am ay convention aussi ak suñu réew kon nga xam ni bu ci dossier amé dañ koy dañ koy top à la lettre maintenant nak l'avenir nous dira lan la euh, dossier bi du jour. di jur. mais euh, Serigne xamna euh peut-être nee nañ ko persona non est ce que nekkul loolu dafa n'est juste justement euh, par rapport action et émotion une euh, autorité une autorité du défendre Ousmane Sonko. comme ni ko avocat français défendre ki que Mambay est-ce que def na dara euh, crime la wala kon pose acte illégal bu carrément que ni amul droit sénégalais pourquoi. est-ce que émotion peut-être caprice moo wax moo tere lancé le jeune ne Juan Branco du ñëw fii Sénégal sans pourtant poser dara le dul défendre son client. wa xam nga ñaari mbir dafa am. Hmm. am na ande ak mom mais amna fuma andul ak mom itam. Juan Branco parce que man j'ai toujours euh, défendu les droits humains surtout nak ci mbirum Ousmane Sonko ku ne gis na taxawaay bu ma ci am. Hmm, hmm. fépp injustice dawale ci kawam nakaru na ko. mais non. Juan Branco itam ba mi ñu amna cadre yu mu yëkëti won itam mm. bien que nak c'est l'avocat Ousmane Sonko il a le droit de venir défendre son client comme il le faut comme ñiko ñom avocat yenen yi nga mm. xamanteni c'est des avocats étrangers don défendre ma mbay ñaan ñewon mm. maintenant nak bi mi ñew itam amna cadre yu mu yëkëti fallu dem na wone Macky Sall c'est un tyran xawma lan ak lan ay essayant dégg vraiment cadre yo xamanteni man mi aussi ci plateau anduma ci won naxalu won nako tamit parce que je ne peux pas concevoir aussi un étranger voilà yëkkati yenn kàddu yi aussi di di ko di ko teg ci suñu chef de l'État moi je ànd donte donc je critique beaucoup le la gestion du président Macky hmm. Sall. parce que tey Ousmane mais xaar ma ñëw xaar non non non c'est chez nous fille c'est chez nous. Euh, non non non non. Ah, ah. parce que euh, le président euh, Bassirou Diomaye Faye. Hmm. duma nangu duma du sétane nit di jël ay kàddu yu mu war tek ci kawam diko tek ci kawam. moko ko ta nangu. ak fu mu mën a doon ak foo mën a jóge hmm. du ma ko nangu parce que c'est notre président war nañ ko mën a critiquer nag ci suñu biir critiquer su suñu gestion mais lu hmm. ma dul nangu mooy doomu réewu jàmbur. Hmm. di jël ay saaga di ko dendale suñu njiitu réew du ma ko nangu. fii nag on peut s'entretuer waxtaan jubóowaat. mën na ne ci ñun kàddu yooyu xëy na peut-être lu naxari woon autorité Sénégal yi la. parce que comme damaa yàgg wax ni même ñi nekk bitim réew di saaga nañu arrêté saaga yi. Hmm. Khalifa Sall bi mu fi ñëwee dañ ko waroon jàpp parce que fii la nekk di saaga lu mu fi yàqul Ousmane Sonko amut saaga fi ay gendarme saaga fi kon bu ñëwee dañ ko waroon jàpp comme ni ñu jàppee ñeneen. Hmm. kon looloo aussi mënuma ko lu ba pare. ñëw tamit hmm. di rafetlu leneen loo xamante ni keneen def na ko surtout nag koo xamante ni du doomu réew bi donte nag nee naa ni am na droit wu sañ-sañu ñu défendre son loolu mooy dëgg loolu moom mooy yoon. te dañ ko war a bàyyi mu yoon défendre client mais aspect boobu laa àndul ak ak ak ak Juan Branco parce que ëllëg day amaat itam ëllëg day amaat xam nga nit mën na taxaw fële tey saaga Bassirou Diomaye Faye bu hmm. boobaa lan laay wax am na droit saaga ko non dama naan waru ko saaga dañ ko teg si yoon moo tax ma ne aspect boobu aspect la bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma naqar yi boo xamante ni man bokkoon naa si ñu ko ñu ko ñu ko viol quelle ko soit la situation c'est nous dans nañ fi lu ne Ousmane Sonko président Macky Sall ñaari camp yëpp waxante nañ fi lu ne c'est nous dans mooy li ma la wax rek. Mm. nous sommes tous des sénégalais mën nañ tojante suñu bopp ku ñu paree ñu xool nañ ko réconcilier waat tu as vu mais daal dossier de Juan Branco euh, je pense que c'est un dossier à suivre et que véritablement mën na bañ amati yenn ngaañ ah, mm. ah mais régime bi noonu défendre aujourd'hui c'est ce régime là qui est au te ñoom la doon défendre. ma doon seen avocat te xeex bi nag daf ci xeex xeex bu am solo ici. kon Branco. oui mais mais mais bari na ay dossiers yoo xam fii moom moo ko daan njëkk a génne ba même nee ci rapport médical bu Ousmane Sonko bi gars yi wili ci réseaux sociaux yi sax gars yi moo ko njëkk a génne. xam moo ko njëkk a xaw ma nag moo ko njëkk jotam déet mais moo ko njëkk a après si la ko ñoom Amadou Ba reprendre si lañ hmm, jàppe woon Amadou Ba bu Pastef. Hmm. xeex na xeex bu ne dossiers tey ci la dossier yi atterrir fële ca cour pénale internationale donc kon jàmbaar la ci xeex bi. risque gros nga jàpp risque gros c'est-à-dire. par rapport à euh, entendement bi na xam ne tey war nañu ko daal di war a mën a. amal waaw mais ça s'inscrit dans l'ordre normal de choses mën na bañ a bañ a bañ a bañ a bañ a bañ a. demee ah puisque moom aussi c'est un avocat il sait se défendre c'est un avocat.

di jël bu ko def instrument ñaawal ko ba yaakaar ni ñii dafa am fu ñuy feneen fu ñuy waxee man ni ma déggee teg muy dox ni ko Pastef développé ak ñenn ñi. Eh, eh. mooy bëgg lu yomb dafa war a jeex nag fàllu. yi ñuy encaissé chaque mois. mooy li ma doon wax si emploi fictif yi léegi. Hmm. si administration yi am na ay emploi fictif des gens qui ne travaillent pas qui chaque mois ñu jot seen salaire. waaw j'en connais beaucoup <laughs> plusieurs. waaw ah, xam nga si affaire yi nga nekk ci ci presse bi nga nekk da ngay <laughs> xam lu bëree bëri. <laughs> loolu benn la euh. deuxièmement deuxièmement hmm. mais y' a beaucoup de gens qui, demal nga xool Ils dara Ils business font. def fait, des ay Ils ay ils mais C'est une ñuy waxal am na seen liggéey ni la rek. Ah. ni ne la rek ñu seen liggéey la mais euh, mais ñu ne Ils état Modou <laughs> en tout cas lépp leen wax ci ci sawaay sawaay dama ne la toog muy dox. man ci ni ma ko déggee ay ay ay euh, si ay lii du ñëwati ay euh, ay si ay enveloppe ak ay. Euh, waaye toog rek ñu lay wéy ay enveloppe ak loolu yi fu mu amati. warul lool loolu sawaay dama ne la. ak ay ak ak ay malet. waaw yow ñooy daal loolu lépp da nga ko non lu bari jeex na lu bëree bari na fi. ku nekk mën na may sa xaalis mais pas xaalisu état bi. non xaalisu état bi kenn waratu ko fowee. man daal noonu laa déggee toog muy dox déggee ma ko nag mm. ak ñeneen ñeneen ñi nga xam ne yàq moo leen jóg bëgg a changer discours bi man déggoo ma ko si anam boobu man ci bon sens laa ko déggee mooy tappale moom na jeex ku mm. liggéeyu wax dëgg yàlla fàllu mm. ku liggéeyu waroo am fii réew mi ngay gis ñoo xam ñoo dàq liggéey kuy liggéey tous amuñu ko am na ñoo xam ne bu xëyee xoolal midi la ñuy yeewu une heure sangu ba set ndékki toog fu toog affaire bi di waaye yow bi non loolu dafa wara jeex am ñoom ñu ci réseaux sociaux yi ni lan lañ fa nekkee lu dul daru nit ay nit manipuler leen instrumentaliser ñu ñuy daru nit. bay pex personne day tëdd muy dox. ah yow non yoy mom yoy mom vrai vraiment nañ ci dimbali Sénégal day jaaxaan muy dox alors. mais quand même euh, tok muy dox bi euh, justement Birame Souleye Diop en le ministre justement du euh, du pétrole et des mines. kàddu yi nga mm-hmm. xam ne yëkki ko ci tabaski. mu daal di jàpp ni bu leen bu yeboo bu leen kenn tuddee làmb ak ñeente et tant d'autres et kenn du leen fa gis alors. Nous, euh, les ni làmb moy suñu espoir euh, arène nationale euh, suñu sport national est-ce que ñom duñ dem dans dans sens d'aller ni xaw doye alors quand yi nga xamni tam itam Birame Souleye Diop ko ba ñu dans géwél sens exactement ala dans sens que ni lo dafa yag ci ñu tuddé la nga ñew ak say gangor, ah? non drapeau étant d'autres étant d'autres man ni ma Rien ne peut-être communication bi ni mu ko véhiculer mon Mon Mon baaxul waaw baaxul quoi franchement parlant honnêtement parlant. Hmm. parce que Fallou il faut d'abord comprendre le sens de l'État et c'est quoi un État. L'État a, a un rôle yo am solo l'État a un rôle de prospérité de sécurité mais l'État aussi a un rôle de loisir. Hmm. l'État doit faire en sorte que Fallou mi nekk ci ci keppaaram bu bëggee loisir l'état état moo war a def en sorte que fallu moomu am bànneex l' état xanaa xamu ni état warul nangu kenn di nekk ci territoire am di mer wala di bëgg loisir te doo ko am yooyu dafa bokk ci ay ay rôle état ci mission régalienne de l' état loolu ci la bokk la loisir le mm. loisir du mm. moins il faut le comprendre en ce sens là bëre bi ak yeneen ak yeneen yi nit ñi di wax. football bi football bi surtout bëre bi sax man ci laay gën a miser wu. Mm. gis nga seen lutteur là. man pour pour man aujourd'hui discours bi fi mu war a dem ak fi ñu ko war a véhiculer certes war nañ gën a encadré waat mbër bi mbër bi. Hmm. ba ñi nga xam dañuy topp ci ginnaaw lutteur bi mën di gis dara wala di am dara ci contrat bi nga xam mbër mi mi ngi koy gaañ yooyu yëpp mën nañ dem vers ces hmm. xale yi nga xam dañuy am na xale yoo mën nañ topp ci ginnaaw lutteur bi di ko jàppale ci encadrement tout cela lutteur bi di gagné cachet bu am solo mais du ruus ba yegsi si ñoom. war nañ def en sorte que loolu maintenant lutteurs yi leen war a jàppale promouvoir leen encadre leen ba ñuy participer ci sport yi gën a mag à l'échelle international man pour man loolu mooy yoon bi mais am na yenn kàddu yoo xam ni nga koy yëkkatee ak nit ñi nañ koy déggee du baax piram mm. moom moom pratiquement dafa am problème communication mm. il parlait avec euh, émotion day def gis nga gis nga même di ko dossier bi ñu ko doon ubbil fële temps yële mm, Macky Sall ak ñoom Ouattara moo tax il doit faire très attention. bu ñu aussi parce que nee naa réforme baax na Fall. Hmm. dañoo war a dem vers des réformes mais bu ñu aussi parce que bu ñu yàkkamtee rek. ñoom est que nekkul ils sont pressionnés. waaw loolu laa moo tax man la bu ñu. yàkkamti wax exactement xam des fois ñu dugg leen si guuta. bu euh, internet peut-être des fois donc comprendre. Hmm. bu ñu yàkkamtee Pastef li muy def li bëgg liggéey àndul ak yàkkamti. patience assurance mais bu ñu yàkkamtee yàqule xam nga mooy lan. parce que nit ñi ñoo dul comprendre fu ñu nit ñi dañuy dem ba jàpp ni vengeance la ñuy def est-ce que yaa hmm. promettre nañ Sénégalais yi rupture te rupture dafa war a am Sénégalais yi gëm nañ leen mais nañu xamal Sénégalais yi aussi que ce projet bi ñu yor sa hmm. demande de patience patience surtout kii du projet ñu benn fan ñaari fan hmm. bu fekkee liir nga man je lii dama xam seen programme seen projet tu l'as parcouru projet bi boo boo xoolee lu ci ëpp redressement la maanaam jubbanti ñoom rupture bi lu ci baree bari jubbanti la li dëngoon ñu jubbanti. Hmm. jubbanti nag yombul wax naa la ko dafay ànd ak patience. jubal jubbanti alors dafay ànd ak patience. Euh. moo tax daal nañu gën a góorgóorlu gën a moytu yenn communication yi nga xamante ni parce que seen noon yi ñu ngi taxaw socc. di xaar di bëgg a reetaan. Hmm. en tant que ministre des mines quand nag Birame Souleye Diop éviter. justement de de de communiquer avec poste ministère bu yor c'est c'est waaw moom xam nga c'est un scientifique man man xam naa je comprends bien les scientifiques. Ah. des fois certains scientifiques li la ñuy bëgg wax wala ñom dinañ xam liñ bëgg wax mais buñ ko waxé du dégg-dégg bi ci. manam olof bi lañuy bëgg a euh, français bi lañuy bëgg traduire. exactement xam nga tay bu delluwaatoon man leer na mu boo ah. micro dina waxat wax ji ah. neneen nu ah. mu bokkul ko waxe des fois la parce que parce que parce que bo waxee boo waxee nu ko waxee non rek. bo hmm. waxee rek ñu bëri dañ nan hmm. ki dafa sofantal lamb hmm. nangam ak nangam mom c'est le maire d'un commune d'une commune. tu as vu te bo xolé activité yooyu pour la plupart jeunesse réew mi ñokay def.

Serigne loolu mënul ne. ah mënul ne. imaam bi nee na Macky Sall. certes nag ci projet PASTEF gis naa ci euh, dinañ accompagner les maisons de culte mais un accompagnement avec transparence tu as vu. Hmm. c'est-à-dire ñoom bàyyiwuñ ginnaaw kilifa diine yi. am nañ am nañ projet. pour les maisons de culte am nañ ko de. am projet boobu mais projet bi dina wute ak ni Macky Sall doon defee. xaalis. waaw xam nga yi nag da doon politique moom ça veut dire da doon politique pour am ay mandat yu bari mais ñi dañoo ñëw point la ma la wax pour redresser ñi dañoo ñëw pour mun nañu créer woote rupture ba pare di def li Macky Sall defoon mënuñu. est-ce que loolu du leen sikkal. ah mais ah, jar sa waay ne la xaar ma ñëw ma wax la benn affaire man xam nga xoolal. <laughs> nee na ko Diomaye gisaguñu la Pastef coalition Diomaye président Bassirou Diomaye Faye am benn mandat. te teg yoon bi ci réew. teg te teg réew mi ci yoon. moo ma gënal mu am fukki mandat te tegul réew mi ci yoon. ñu ne ko Diomaye gisaguñu est-ce que dégg nga baale ma wax. Diomaye gisaguñu la si korité. dama ni <laughs> le président son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye am benn mandat. Hmm. te teg réew mi ci yoon moo ma gënal mu am téeméeri mandat te tegul réew mi ci yoon. kon nag dafa am foo xam boo fa tolloo doo xool bëggi-bëggi sénégalais yi. Hmm. mais dangay xool li gën ci sénégalais yi li gën ci sénégalais yi nga defal leen. et que je pense que cette politique de rupture là biñu woté ci sens bobu lay dem en tout cas amul ma xol ma xamul amul xol ma samba wala ma dem ba li wara xol a xool sénégalais yi. Hmm. politique bu bon bi fi mais néñ dañ koy dindi lu la c'est une bonne chose. Hmm. c'est une très bonne chose mais cela demande également beaucoup de volonté politique beaucoup de courage. Hmm. beaucoup de courage Fallou parce que on est en face avec un système. xam nga système bi léegi ñoo nekk ci biti ñi ko doon xam ne ñu ngi doon doxal système ñoom ñoo nekk ci biti mais ba tey tooguñu di seetaan mais nee naa la socc nañ seen bëñ ba di fas yéene bëgg a reetaan mm. faay la ñuy xaar ñu jël def indi jabolisation mais boo xoolee si wàllu diine ji Pastef newul ne du accompagner diine ji de ci seen projet wax naa la ko léegi ci seen projet am nañ un projet véritablement relatif à la gestion des maisons de culte parce que fexe nañ ba wax ni dinañ leen jàppale mais de manière transparente C'est gis projet parce que parce que xamni Macky non Macky Macky da doon Macky même ba ñi Macky ba wutal de quartier dañuy mais mais mais ambassadeur yi. Hmm. seen jabar yi sax 500000 hmm. lañ doon chaque mois. Nous juroon na fi Nous non fa juroon fi ambassadeur yi. envoyé. de série. ah mais mais l'argent a été mal bon gestionné. Mm. On se quitte avec euh, peut-être 30 secondes. M. Mm-hmm. Kledor, jàpp na ni prisonniers politiques yi waruñu faa fanaan si exactement na Ousmane euh, d'Adi di jël ay responsabilités monsieur le ministre il a li qu'il xam ah, libéré. après Abdou Karim Xurum est-ce que M. Kledor a dafa nekk di une sorte une sorte peut-être de pression euh, ministre Ousmane. pas mais je pense que Dieu leen libéré dinañ leen libéré. les autres détenus puisque une loi d'amnistie a été votée pour tout ce qui concernait l'affaire Adji Ousmane mm. Sonko. avec euh, Limou mu engendré yëpp ci ay ay mbir. je pense que dinañ leen libérer Fallou man je pense qu'il dinañ libéré. libérer. mais mm. xam nga état aussi c'est une organisation. organisation. Ah, il faut que nous sachions que l'État est une organisation. Mais que c'est mieux. Non, mm. je pense que dinañ leen bàyyi. man j'en suis persuadé que dinañ leen libérer quand même alors c'est clair merci beaucoup Serigne. merci beaucoup Ça a été un plaisir. On a parcouru justement l'officialité, je pense, oui. dans son ensemble. <laughs> <laughs> ah, ah,

muito croissant. CEFAS, le centre de formation africain du Sénégal. École, alternance, école-entreprise, stage professionnel. Reconnu par l'État du Sénégal et le Centre international privé européen des études professionnelles, CIPEP e des écoles internationales. Le premier centre de formation privé au Sénégal. Une école d'excellence et de référence composée de deux départements. Un département des sciences de la santé et un département de management et technique. Nos filières en santé, infirmiers d'État, sage-femme d'État, assistant infirmiers d'État, analyse biologique, délégué médical, vendeur en pharmacie, secrétaire médicale, médical, biologie médicale, aide-soignant, nos filières en management, transport et logistique, commerce international, transit douane, gestion des ressources humaines, comptabilité et gestion, secrétariat bureautique, hôtellerie et restauration, marketing et communication, informatique de gestion, gestion des entreprises, banque, finance, assurance, journalisme et communication, qualité, hygiène, sécurité et environnement, marketing digital et nos filières en technique, génie civil, génie informatique, génie électrique, génie mécanique, électromécanique, électrotechnique, agroalimentaire, réseaux et télécommunications, infographie, développement web. Nous proposons aussi des diplômes internationaux sur la base d'un partenariat qui nous lie avec de grandes écoles marocaines et canadiennes. Nos diplômes, certificats professionnels de spécialisation CPS, brevet de technicien BT, brevet de technicien supérieur BTS, bachelor professionnel, licence professionnelle, master professionnel. Nous garantissons à 100% un stage à nos étudiants car nous sommes en partenariat avec de grandes entreprises, les plus grands hôpitaux, districts et postes de santé du Sénégal. Nos formations sont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 de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à NACSUP, nous sommes au Sénégal, à Dakar, à la cité Cœur d'Amel, avant le rond-point 26, départ à assainis. Téléphone 33 833 54 44 77 868 57 27 ou 78 525 59 75. Notre site internet www.cefas-sénégal.com.